asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi nuyu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziara fii ci uh, Touba ci grande mosquée bi ci wàccaayu màggalu ko uh, Touba 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2022 uh, di leen wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di baaxee saa su mbokk yi tey xibaar dañ koy dooreek rencontre d'évaluation bi maanaam ndaje mi nga xam ne dañ koy amal bu màggal gi dese ay fan yu néew ngir ki ñi nga xam ne ñoom ñoo di chef de service yi ñu xoolaat li nga xam ne mooy matuwaay jël ci màggal gi fan lañ ci toll loolee nag ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur moo jiite ndaje moomu ànd kook président bu comité d'organisation bu grand màggal bu Touba di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir ak mboolem comité bi ci résidence Khadim Rasoul fii ci tubaam Mbacké ginnaaw ndaje moomu am na kàddu yu am solo yoo xam ne Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir yëkkati na ko nga xam ne jël nañ ko ci màggal gi ñu ànd teewlu ko. tàbbali ci ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ci jeexeetu liggéey bi muy liggéey bu màgg di liggéeyal Serigne Touba di bis bii nga xam ne moom la waxoon ne nañ ko ci sant la yàlla ne képp koo xam ne mbégam sa mbégam bu agsee nañ ko ci sant la yàlla suñ borom nag defal ko ci xabool ndax ñëpp dégg nañ ko ndax tey boo xooloon ñi fi ñëw ñi fi ñëw. ñëpp ko jàppe seen bis léegi àdduna sëpp ñoo jàpp màggal Tuubaa seen bis kon ñi ngi nuyu bu baax ministre de l'intérieur mi nga xam ne ndaje mii moo ko jiite di ko taxawal ak mboolem délégation bi mu àndal ak mboolem chef de service yi fi teew yëpp te ñu seqoon ñoom liggéey bi kon ñi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ci tuuru sëriñ bi di leen jotali cant ak ngërëm ci liggéey bi nga xam ne ay weer a ngi ñu tàmbale woon ko tàmbale woon ko ci CRD ci njiital Serigne Ousmane Mbacké bi nga xam ne moom laa def muy jëwriñi liggéey bi moo taxaw ko taxawaay bu rafet ànd ko te di ko defee pësee fa jiite ba àdduna sépp seere ko xam ko di ko ñaanal bu baax ker wax naa ko sëriñ bi ne naa ko noo may ñaanal rek na ko ko ñaanale ndax jàmbaar la ci liggéey bi lool ndax def na ci jom def ci yitteem def ci pëstéefam ak ñu mu ko seqal ñépp nag ndax kuréel gi ëpp na fukki commission ak nangam ak majlis suura bi nga xam ne sëriñ Basiir Mbàkke Abdul Xulus teewal leen am na kilifa yu ñëwoon waaye jataay bi dafa xaw a yàgg ba tax ñu mujj yeewi ko waaye ñu teewaale leen kon ñu ngi nuyu ñëpp kon ni ma ko waxee ci CLD bi ci njiite sëñ Ousmane ak sëñ Abdou Lahad Ka bi nga xam ne moo jiite commune bi moo itam ñu du ko ci sant ca taxawaay lam ca war a def lépp ànd na ko suñu Ousmane lim ci daldi woon def na ko dara manqué wu ci ci li doon ak wàllam di ñu jógee ci jaar ci CDD ndax le sous-préfet koy def ñoo ñëpp def nañ ca taxawaay jiite jaar ci CDD suñu Ousmane jiite ko ñu jóge fa dem gouvernance ànd ko gouverneur bi nga xam ne moo doon lire rapport bi léegi ba jóge fa dem ci ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo jiite jotaay bi tey ñu dem fa jël fay engagement yu bari xam naa duma ci mën a sori ndax bu ma noppee dinaa jox suñu Ousmane mu sànni ci kàddu waaye li jiitu rek mooy jotli ak cant ak ngërëm ndax ab liggéey boo ko seqee ak ay nit àgg gudd rek ndax màggal gi des na suba ginnaaw suba waaye li am solo mooy yitte ak taxawaay kon ñi ngi nuyu bu baax ministre de l'intérieur Antoine di ko sant bu baax di ko gërëm ci turu Cheikh mu taxa ndax sëriñ bi seereel na ko boppam président keroog wax ko tax. mu nekkoon euh, kàddu yi sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khadre ci rencontre d'évaluation bi nga xam ne amal nañ ko ci euh, wàccaayug euh, màggal gi fii ci Touba. mbokk yi euh, euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides ginnaw ca ndortel safar gi booba léegi mu nekkoon ca résidence euh, Daarul Minnan ñëw na fi nga xam ne moom moo di ci résidence Khadim Rasoul ci fukki fan ak juróom benn ci safar 1444 ginnaaw gàddaay gi maanaam bi màggal gi dese ñaari fan rek ndax ci résidence Xaadimu Rasuul fi lay dundalee li nga xam ne moom moo di euh, njàng mi fi lay dundalee li nga xam ne moom moo di euh, màggal gi sëriñ bi nag euh, agsi na ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey boobu ci résidence Xaadimu Rasuul mi nga xam ne noonu ngeen ko gisee ci image yi rek bi mu see dal fi nga xamante ni moom moo di ci appartement bi nga xam ne fa lañ koy ziara waaye it fa la waa daara Hizbut Tarqiyyah fas yéene ànd ak moom ci mbokk yi bokk na ci xibaar yi daayira muxaddamatul xidma bi nga xam ne mooy saytu uh, jumaay Tuubaa ji am taxawaay bu am solo boo xam ne dañ koy am ci uh, màggal Tuubaa yi ci comité d'organisation bi ci taxaw ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan ñi ak yeneen fànn yu bëree bëri yoo xam ne ñoom ñoom ñoo koy def uh, ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdoulaye Diop am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo taxawaayu muxaddamatul xidma ci li nga xam ne moom moo jëm ci fànn googu ñu teewlu ko. waaw Abdoulaye mm, secrétaire général daayira Muxaddamatul Xidma nekk itam ci coordination commission organisation bi nga xam ne mu ngi ci biir comité d'organisation bi Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr jiite muy organiser Magalou Touba. commission organisation boobu nag euh, dafa am cahier de charge maanaam liggéey bu am solo boo xam ne moom lañ leen dénk ci màggal gi muy dalal gani tarixa yi kilifa yi diine yi nekk ci Sénégal ak association islamique yi yi nga xam dañuy màggal si ci turu sëriñ bi. ñoom la ñuy dalal di leen toppatoo diirub màggal gi lu jiitu màggal gi danañ lañu yónnee ay invitation yoo xamante ni dana leen yëgal màggal gi waaye itam leeralaal leen ñëwin wi nga xam ne moom lañu bëgg ñu ñëwee ko bu ñu ñëwee itam danañ fekk ñu programmer mbooleem tarixa yooyu seeni daluwaay xam nga daluwaay yi ñu am ñaari daluwaay la muy bi nga xam ne moo féete fii kër sëñ Touba gi nga xam ne moo nekk Touba moske nekk ci wetu jumaa ji ak kër Sëñ Tuubaa gi nga xam ne moo nekk fële ca Daarul Mannaan euh, ñaari kër yooyu mën naa ne moo ëpp ci dal yi nga xamante ni ci la gan ñi dal loolu nag ñu ngi ko dénk mu xaddamatul xidma moo yor ak accueil hébergement bi maanaam mooy teeru gan ñi di leen dalal di nekk ak ñoom di leen toppatoo ba màggal gi jeex mboolem luñ soxlawoo ci ay activités itam moo xam ay conférence yi ñuy teew nga xam ne Rawdu Rayaahin mi ngi koy organiser daañ fexe ba euh, ànd ak ñoom dem ci conférence yi moo xam ziar yi ñuy ziare xalif général de Mouride moo xam visite yi nga xam ne moom la ñuy def ci dëkk bi fu mel ne jumaay Touba wala yu mel noonu wala ziar yi itam danañ fexe ba ànd ak ñoom euh, euh, yóbbu leen ci barab yooyu ñu ziar ko def ko niñ ko niñ ko bëggee liggéey boobu nag liggéey la boo xamante ni Muxaddamatul Xidma depuis comité d'organisation sosu ba léegi daf ci taxaw jël ay membre yoo xam ne daf leen détaché fii ndax xam ngeen Moukhaddamatoul Khidma liggéey jumaa Touba ci moom la aju waaye foofa lu mat junni membre ña nga fa moo tax mu tànn ca ñooña nag benn équipe boo xam ne équipe de trente personnes lu mat fanweeri nit féetale leen fii ci commission organisation bi nga xam ne ñooy dalal gani euh, tarixa yooyu ak association islamique yi ko defee ñu wutal ko ay waxtu maanaam ñi nga xam ne dañuy monter ñëw di toppatoo gan ñi de huit heures à vingt heures bu ñooñu euh, vingt heures jotee ñooñu wàcc beneen équipe ñëw boo xamante ni mooy jël vingt ba huit ci beneen bi ñu ngi koy tàmbali ci quinze safar ba dix neuf safar quinze safar ba 19 safar jour bi nga xam ne mooy jour cérémonie officielle bi ñoo ñu ànd ak gan ñi ba lépp loo xamante ni soxla woon nañ ko liggéey boobu nag ñu ngi ko ànd ak daayira wilaya nga xam ne ñoom ñoo yor lépp lu aju ci restauration bi maanaam di leen berndeel di leen toppatoo di liggéey bu am solo boo xamante ni dafa laaj nag ñu xam taxawaay boobu nga xam ne moom la ci daayira muxaddamatul xidma di di taxawee chaque année ci turu sëriñ Afiya Bousso mi njiit li waaye nag ci kilifteefu sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mi nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk màggal gi ci loxoom loola nag jumtukaay bu mu laaj rek danañ ko def ci wàllu informatiser ko ndax gis ngeen liste yi ngeen di gis ñu koy lim ci cérémonie officielle bi ci tarixa yi ak di ko lim ci conférence bu mag bi nga xam ne moom la Rawdu Rayaahin def loolu lépp Moukhaddamatoul Khidma moo koy liggéey bu jeexee danañ def benn rapport boo xam ne dana tënk liggéey boobu ci ñu xam ñaata délégation ñoo ñëw tari tarixa yooyu association islamique yi ci turu kan la ñu ñëw kan moo jiite délégation bi ñaatam nit la ba bu jeexee dañ xam ne nangami délégation ñëwoon na ci màggalu ren gi yu composé wu ci nangami nit ñii ñoo daloon fii ci kër gi di kër sëñ Touba gi ci Touba mosquée chambre yi ñu daloon euh, ak bis yi ñu fi nekk. ak bis yi ñu dellu yooyu yëpp day figurer ci rapport boobu muy liggéey boo xamante ni daal liggéey bu am solo la incha allah xam naa ci biir màggal gi danañ delsiwaat ci ay images yoo xam ne da ngeen gis liggéey boobu niñ ciy déroulé ak membre yi niñ ciy taxawee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu des ba léegi ci euh, fànn googu ci ni nga xam ne noonu la ñuy dalalee gan ñi fii ci euh, Touba Mbacké te am na ci pàcc boo xam ne ñu dénk ko daayira Muxaddamatul Xidma ñu ci def liggéey bu am solo ci résidence euh, Xaadimu Rasul bi nga xam ne moo nekkee fii ci jumaa ji ñoom nag ñuy dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di gan ñi bàyyeekoo fu ne rawatina ci kër diine yi ki nga moo xam ne moom moo di Serigne Abdou Lahad Thierno ñëwaat na ci ni nga xam ne noonu la ñuy taxawoo gan yooyu le liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy def fii ci résidence bii di résidence Xaadim Rasool bii ci kër Sëñ Touba gi ci jumaa ji eh, bëri na ay membres ñeenti coordonnateur ñu ngi fi man nag man may coordonné kër gi ci liggéey bi nit ñi li fi daayira bi di liggéey mooy accueil et versement c'est pour lycée muy tarixa yi nekk ci réew mi ci ëpp fii la ñu dal ak association islamique yi am na ci yu bëri yoo xam ne fii la ñu dal eh, ci waaye nag ci ñu fay dal daanaka ñi fi gën a doon mag ci tarixa yi ñoom ñoo fay dal mais nombre bi nga xam ne moo gën a bëri nag résidence doo ma naan bële la ñu dal incha waaye fii mën nañoo ràññee ne euh, daanaka dana am lu mat cinq délégation ni ngeen gis sa liggéey bi noonu lañ koy def muy euh, dana am ay coordinateurs yi fi nekk yoo xam ne dana am kuy permanent ci bunt bi euh, di leen accueillir su ñëwee ñu jox leen parking ñu gaare ci bunt bi boole leen ak takk der yi ngir ñuy suivre seeni oto su ko defee ñu accueillir leen yóbbu leen ci seen i sàmbur boole leen ak responsable wilaya yi ngir ñu leen di toppatoo ci wàllu bernde yi ak yu demee noonu. mbokk yi ñu doxantu ba ca résidence Xaadim euh, Rasul bi nga xam ne moo nekkee ca Daarul Manaan jàkkaarloo garage bi foofa it am na délégation yu bëree bëri yoo xam ne fa lañ leen di dalal rawatina ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo ci euh, kër diine yi foofa it euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di. daayira muxaddamatul xidma di fa taxaw taxawaay ba am solo ngir toppatoo ñooñu nga xamante ni ay kilifa tey bàyyi ko fu ne ngir ñëw uh, fi nga xam ne moo di ci Touba Mbacké ngir teewee màggal gi ki nga xam ne moom moo di uh, Serigne Cheikh Mbacké am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ci taxawaay ba ñuy amal foofu ci résidence ba ñu ànd teewlu ko. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa daayira muxaddamatul xidma muskatu Touba org Euh, ñu ngi leen nuyu baax di am mbégte ci seet si gi ngeen seet si liggéey bi nga xam ne euh, di banqaas boo xam ne dafa aju ci euh, comité d'organisation Màggal Touba ci njiital sëriñ Bachirou Abdou Khadir Mbacké di mbooloo moo xam ne dañ fee nekk di jagal màggal gi ci wàllu ak ak yi hébergement ci màcc màcc ci côté bi nga xam ne ci lañ féete di fii ci Daaru Manaan muy amal liggéey yoo xam ne day dalal bépp gan boo xam ne jóge na ci fu man di jógee ci àdduna bi su dikkee fii danañ ko dalal danañ ko teral ci ndigalal xalifa général ñi ngi ci gën a taamu nag ci dalal googu euh, gan euh, ñi nga xam ne kilifay diine lañ te nekk nekk ci Sénégal ñu ci bëri fii la ñu dal ci délégation bi yàlla dogal ñu daje ànd ci comité d'organisation màggal Touba euh, ci njiital Serigne Bassirou Abdou Khadir Mbacké ñu dagg ci benn pàcc ci daayira Muxaddamatul Xidma féetale leen ci wàllu ak yi hébergement lañ lañuy la ñuy amal fii euh, ñu ànd ci ak wilaaya yi ci wàllu réception ak mm-hmm. euh, bernde yi ak li xeeti liggéey yeneen yi nga xam ne day ànd ak liggéey bi ñu def kon mën nañ ne fii liggéey bi euh, kenn mënta dem bàyyi sa moroom muy wilaaya ak Muxaddamatul Xidma ñoo nekk fii kon di def liggéey bi ci ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee Euh, bañ tàmbalee depuis 15 safar ba léegi ñi ngi délégation yi ñi ngi ñëw bu baax a baax euh, suñ dikkee danañ leen dalal ci salle bi nga xam ne moo nekk ci bunt bi euh, dalal leen ci façon dalil bi nga xam ne ci lañ dalalee kilifa surtout kilifa goo xam ne kilifa diine la ñu dalal leen ginnaaw buñ leen dalalee it ñu vérifier seen euh, euh, statut ci kër gi ba xam ndax ñoom ci gan ñi lañ waaw wala déet su fekkee ci gan ñi lañ ñu euh, kii leen ñu dalal leen jox leen seen chambre su ko defee laja des suñ mbokk yi ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey muy waa wilaaya ñu continuer liggéey bi waaye nekk na liggéey boo xam ne daal moom liggéey bu mbégte la liggéeyu sant la ndax Sëriñ waa moom ku mi liggéeyal sant ak ngërëm rek ngay def te it yàlla dogal it muqaddimatul xidma di euh, mbooloo moo xam ne sëriñ bi wóolu na leen ci bépp nekk fii ci réew mi ak ci fu mu mën na soxla ci xeetu liggéey yu demee nii dana leen ko dénk kon euh, dénk gi mu leen dénk ci wàllu liggéey demee nii moom yaakaar naa euh, sëñ bi doyloo gum leen doyloo la waxtu wu ne mu di ko feeñal moo tax waxtu wu leen ko dénkee rek danañ ko def defin woo xam ne wu kawe njort la ci liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ sëriñ bi di liggéey. Euh, fii daal ñëw nga fi seet fekk fi seen naataango euh, ñu bokk ci daayira bi waaye nag ci beneen fan muy ci comité d'organisation bi ci côté accueil hébergement fekk nga fi it ñoo xam ne wax dëgg ñu am xam-xam ci liggéey bi te yàgg koo def amuñu ci benn jafe-jafe daal wax dëgg liggéey bi mi ngi eh, déroulé ni mu war a déroulé gan ñi mën nañoo wax ne quatre-vingt-dix pour cent ci gan ñi mën nañ ne ñëw nañ te dal nañ kenn nekku ci benn jafe-jafe wax dëgg liggéey bi maîtriser nañ ko maîtriser boo xam ne daal mën naa ne lépp daal jaar na ci yoon waaw loolu moom maîtrise gi tax na xam-xam bi nga xam ne yàlla dogal na mbooloo mi am nañ ko ci wàllu googu euh, tax na ba jafe-jafe yi daal xam naa xam-xam bi leen yàlla dénk ci wàllu dalal gan tax na ba euh, amuñu ci benn jafe-jafe liñ mën a xam leen mooy jamono jii ngay wax ak ñun à quatre-vingt-dix pour cent gan ñi ñëw nañ te ñu ngi ci bërëb yi ñu war nekk waaw kon ñu ngi leen sant bu baax ci dëkk geen fi dëkk di ñaan yàlla tawfeexi màggal gi ak euh, li ci barke ak nga euh, ñu am ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa yàlla tasaare ko ci bépp jullit bépp murit ñaan ñëpp jàmm ak xewam mbokk yi màggal gi daanaka ak si délégation yi tàmbalee ñëw délégation yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci euh, kër diine ñëw fas yéene ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi bés bi nga xam ne Cheikhul Khadim moom moo ko santaane ngir ñu ko ci sant la yàlla ñoom nag ñu ñëw tàbbi ci cant googu ñoom it rafetlu nañ bu baax a baax a baax li nga xam ne moom moo di taxawaayub Cheikh Mouhamadoul Mountakha waaye liggéey bu am solo bi nga xam ne Serigne Touba liggéey na ko waaye it màggal gi nga xam ne màggal gu kawe la ñu ànd teewlu kàddu yi ñenn ci ñoom. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm alhamdulilah rabbil alamin ah kontaan na man Serigne man Serigne Mouride Mouride la Mouride Sadik la dama jàppale kii kii Mourtala moom laa jàppale. te alhamdulilah rabbil alamin ba léegi ah toujours maa ngi ñëwoon fii mais xam nga ne adduna kay day de toujours day day sensé waaw changement bi rek moo tax muy taxaw fii. sant di leen gërëm. mbokk yi Serigne Maodo Cissé bu Pire jiite délégation boo xamante ni dañoo ñëw ñoom it ci màggal gi ni nga xam ne saa su ne dañ koy ànd ak ki nga xam ne moom moo fi nekkal Cheikhul Khadim ngir gën a raxal diggante kër diine yi moom nag ci nu gën a yaatoo. ñëwaat na ci euh, benn nopp euh, kër euh, diine yi benn nopp jullit yi waaye taxawaayub Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides ci réew mi rawatina ci diina ji nga xam ne moom moo di l'islam ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Maodo Cissé bu Péex aouzu billahi samiul alim min asheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala ashraf alxalq sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> bi ñu yàlla mayaatee ñu ñëwaat fii tey ci Touba ci gi nga xam ni moom la ñu màggadal maam Serigne Touba eh, di ko ànd ak njaboot gi di ko sant la yàlla ma ñëw fii nag tey man maay Serigne Maodo Cissé bu Pire eh, ànd sama njaboot yi ma war a àndal ak délégation yi ñëw bis bu tedd bi nga xam ne bis bu màgg la nga xam ni maam Serigne Touba. dafa demoon liggéey li sunu liggéeyal borom subhaanahu wa taala liggéeyal ñu nit jaam yëpp nag ndax sëriñ Touba damay wax ni du sëriñ Touba am France du sëriñ Touba am États-Unis du sëriñ Touba am fenn sëriñ Touba am Sénégal la kon ñun waa Sénégal ñoo ko war a sant yàlla waaye ma jiital nag ci samay kaddu ak nuyoo ak sama ziar ci sunu mag ju baax ji fi nekk. di cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke al Bachir yal na yàlla may ko wér ak gudd fan may ñu ko eh, ndax tabarkallaahu bi mu toogee jataayu maam Serigne Touba ba tey kenn ku ne gis na ab liggéeyam kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko le ci bisbi mbokk yi mbootaay gi nga xam ne moo ëmb euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, imaam yi ak ulama yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal ci njiital ki nga xam ne moom moo di El Hadj Moustapha Guèye am na ndaw yoo xam ne it yebal na leen fii ci tubaa ngir ñu ñëw euh, teewee li nga xam ne moom moo di màggal gi délégation boobu bi ñu agsee bañ dalal leen ñoom it am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko di feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne dox na ci diggante association boobu nga xam ne moo ëmb imaam yi ak ulama yi ak euh, seen diggante euh, dëkk bu sell bi tubaa waaye seen diggante communauté mouride waaye ñëwaat lu gën a yaatu ci solo si nga xam ne màggal tubaa am na ko ñu ànd teewlu euh, kàddu yi kenn ki nga xam ne wax na ci seen tur auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Euh, mbokku jullit yi mbokki Touba mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci Touba ñëw ci dalu gan yi fii ci Daaru Manaan euh, di ma ci màggal gi màggalu Serigne Touba bu mag bi nga xam ne wër na àddina yëpp wane daje bi fii di ci Touba egsi nañ fi nag ci turu Alaaji Moustapha Gueye mi nga xam ne moo jiite association imam ak ulema du Sénégal man Alaaji Umar Diène di secrétaire général bi ànd ak délégation imam yi ki di sama wet sama wet nekk euh, imam Mbaye Ndiaye bu Mbaaw nekk it euh, secretaire chargé de relation extérieures bu association imam yi yore it émission yi ci RTS alhamdulilah rabil alamin ñu ngi sant yàlla egsi nañu jàmm dalal nañ ñu fii ci dalu bi wax dëgg yàlla lu suut sax suñu njort ndax bi ñu fi ñëwee gis ngeen fi ñu dalal muy ci hôtel bu mag bi fii ci Daaru naan mu nekk euh, lu yéeme loo xam ne yàgg nañ fi dal wane saa yi ñu ñëwee rek dañuy gis ne yokkute am na ci yokkute am na ci muy kilifa yu yëpp maanaam fi lañuy dal si ganu sëriñ bi tamit fi lañuy dal si ñiy jóge ci délégation yeeg ambassadeur yeeg ministre yeeg kilifa yëpp daal mën a am fi la ñuy dalal kon bu Tuubaa amee lu toll nii ci biir senegal nañ ko sant yàlla ndax ku dugg ci suite fii da ngay defe ne yaa ngi Dubaay wala yaa ngi Makka toppatoo bi tubaarkàlla tamit xale yi fi nekk jox nañu seen bopp Serigne Touba ba mu jeex mooy lépp lu yar lii di deggin lii di def lu baax wax lu baax yiw dal dangay ruus sax ndax ni ñu lay teeroo ak ni ñu lay dalee ci ya maandute ak yaru sa dara du manqué sa dara du manqué wax dugg yàlla ndax gan bu egsee day jaaxle day tumuranke mais boo ko dalee ba dalal xelam muy ci lekk gi ci naan gi ci dalu bi nit ñi war nañu jàngee ci loolu ndax yar ak teggin ak sutura dafa baax ci dalal nit day dalal xelam ndax gan bu egsee rek li muy jëkk a jaaxle ci yoon bi guddaay beeg coono yi boo ñëwee bu ñu la dalalee ba nga toog ba pare ñu jox la fi ngay dalee ci say néeg boo ñëwee ci say néeg tamit wax dëgg yàlla dara manqué fi li nga war a gan war a fekk ci hôtel yëpp mëtale na kon nag ñu ngi leen di wax euh, jërëjëf di leen wax ne li leen Serigne Touba sant ñu ngi ci. mbokk yi ba léegi euh, ci xibaar yi dañuy dem euh, ba Bamba Modou Bamba Modou dëkk la boo xamante ni mi ngi nekkee ci biir Saalum délégation bàyyeekoo fa mu nekk dëkk boo xam ne Serigne Mamor Anta Sali jàngee na fa. Euh, at mu jot ay délégation di fa bàyyeekoo di ñëw fii ci euh, Touba Mbacké ngir teewee màggal gi délégation bi nga xam ne ñëw nañ ci njiital ki nga xam ne moom moo di Serigne Mohamed Sall ñoom nag rafetlu nañ bu baax a baax waaye ñëwaat ci taarix bi nga xam ne moom moo di dëkk boobu di euh, Bamba Modou waaye ni nga xam ne noonu la fa Serigne Mamar Anta Sall nekke woon doon fa jàng li nga xam ne moom moo di xam-xam wala alquranul karim dañu teelu kenn ci ñoom di Serigne Ousmane Sall bokk ci délégation bi am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko di ñëwaat ci taarix googule aousu billahi samial alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahimi alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wasalim tabaarakallaahu bokk yi jullit yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare rawatina suñu mbokk yu tedd yi ñëw fi nga xam na ñooy télévision MK TV MK TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ko dalee ci directeur ba rawatina yow mi nga xam ne yaa fi ñëw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax laaw ci barab bu tedd bii ci dëkk bu tedd bii bu sell bii e, su ko defee mu mel ni fii ngeen ñëw ni ñun ñooy délégation bi jógee ko bàmb Moodu ca Saalum Bamba Moodu ca Saalum nag mm, tabarakalaaw dëkk bu ràññeeku la ci diggante moom ak uh, Touba ki nga xam ne moo mooy wax ak yéen nii di Ousmane Sall eh, jóge ko ca Bamba Moodu di rakk Mouhamed Sall mi nga xam ne moom moo jiite sax délégation bi danga fekk mu xaw a génn rek eh, Bamba Moodu nag maam Mor Anta Sali Mbàkke moo fa doon jàngee ci suñu maam maam Moodu Bàmba tabaarakalaa ba mu jàngee ba pare la mooy def ba góor gi di ko yeewi la góor gi suñu maam maam Moodu Bàmba ne ko soo demee yam ko wax nag bëri na waaye xaju fi waaye pour tënk rek li ne ba mu fay jógee ko la suñu maam Mamadou Bamba ne ko soo demee sa doomu ñaareel tuddee ma ko ndax wax ca moom wax yu rëy rëy rëy yoo xam ne nii soo ko waxee ku xamul sax man na ko weddi waaye lépp lu waxoon ci maam boroom Touba ne ko sa doomu ñaareel jooja noonu lay noonu lay dana dana fa noonu lay mel kenn ku ne xam na ne mel na lu lu raw loolu fa tabaarakallaa kon e, ndeysaan loolu àllaaqa boobu nag nga xam ne moo dox diggante Touba ak Bamba Touba suyee ci rôle boo xam ne Bamba mënuñ leen ko fay mukk nag ndax mboolem xalifa bu fi nekk daal man daal ñu amee ngor ni ñoom ak ñu leen baaxee ak ñu leen sellee ak ñu amee wëlëre ni ñoom loolu man mosuñu ko ñun xamuñu ko ndax bari nañu jàngee bàmba ci Mamadou bàmba waaye ku ci mel ni Touba dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moom amu ci ñu toppatoo Bamba Modou lañ mbokk euh, di bàyyeekoo fu ne ci biir réew mi ca bitim réew di ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba ngir teewee màggalu ko fukki fan nag juróom-ñett ci safar ba tax na am na taalibe yoo xam ne bi ñu agsee rek ci dëkk bi ak mbégte gi nga xam ne moom la ñuy àndal ak coono gi nga xam ne daj nañ ko ci yoon wi nga xam ne duñ ko yëg ndax euh, mbégte gi nga xam ne moom la am buñ tàbbee ci dëkk bu sell bi am na ñenn ci ñoom taata nañ leen euh, xoo ngir ñu wax li nga xam ne moom lañ yëg bi ñu agsee ci dëkk bu sell bi di Touba. yoon bi daal xataay bi foo ko passé rek foo ko natt rek passé ko xat na lool na ko jógee na ko jógee deux heures du matin deux heures du matin ba léegi ñu ci oto bi ah. mënu ñoo wàcc mënu ñoo dem waaye nag dafa amoon benn accident bu amoon ci yoon bi léegi nag euh, gendarme yi mujjoon baare tali bi ñu wutoon euh, benn lenge bu ñëwoon pour euh, jël oto bi wàccee ko tali bi loolu taxoon yoon wi xaw a baax diggante Fatick bala ngaa dugg Fatick jëm si foofu noonu dafa am benn accident fi amoon accident bi tax xaw naa metti lool ndaxte ah, ah, benn lañ fi gis nag benn léegi nag gendarme yi ah, arrêté woon bi ngir mën a wàccee oto bi kaw tëli bi looloo taxoon yoon bi xawoon a xat lool nag waaye nag moom xat na lool lool lool lu ngeen ci mën a jàpp rek wax leen ne yoon bi xat na MK TV nag site internet la boo xamante na daa xew ci jamono wax naa ko àdduna ko bëgg lislaam ko safoo mu nekk Sakuba Touba Mbacke ca kaw ca kanam. délégation yi wéy di ñëw ci dëkk bu sell bi ci wàccaayu màggal gi délégation bu parti démocratique bu Sénégal di euh, parti euh, PDS euh, bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko jiite yebal na fi délégation boo xamante ni Tafsir Thioye moo nekkoon ci bopp ba ñu ñëw nag gisante ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadir mi jiite comité d'organisation bu màggal gi ginnaaw bu ñu weccente ñoom xalaat waaye it jébbal ko li nga xam ne moom moo di nuyoo président Abdoulaye Wade ak taxawaayam. ci yoonu murit sëriñ Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir waan na ci nu mu gën a yaatoo ci ay seede jëmee ko ci ki nga xam ne moom moo di président Abdoulaye Wade ci ay jéegoom ay yéeneem ak naa li nga xam ne amoon na ko ci yoonu murit ñu ànd teelu kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir. Serigne bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na mi ngi leen di delloo am nuyoo bu baax. di ko teg ci loxol Aliou Diop mi nga xam ne moo jiite délégation bi ak Abdoulahi Racine Kane ak Tamsir Coy mi doon wax léegi Tafsir Tafsir Coy mi doon wax nee da ngaa nekk mu fasir nag <laughs> nee na yow daal da ngaa wuyu saw tur nee na ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax di sant nag bu baax ci tànk yi di yóbbante am nuyoo akuk cant ak ngërëm jëme ko nag ci président Abdoulaye Wade mu ne muy loo xam ne ku ko sant ci fii ci Touba wala nga gërëm ko nee na loolu du jaaxal kenn ndax taxawaayam ci yoon wi walla nag sax ci réew mépp lay wax ndax moom nee na moom mii mas nay waxtaan ak kilifa gu mag ci réew mi nee na lii yàggut muy waxtaan ci mbirum Ablaye Wade ci ni yàlla maye xel Ablaye Wade ak xalaat ak fi mu yóbbu Sénégal nag kooko ne ko ñun ñi nga xam ne ñoo jaar ci administration ñu formé ñu inaam lan ñu jàngaloon jàppoon nañ ne réew mi mënut a agsi fii nee na démb rek la ciy joxe seere bi fi sëriñ buub ñëwee mu ne ko abdulaay Wade noonu la daan xalaate lu mu romb rek xalaat ca dara nee na mi ngi fàttaliku ndeysaan eh, am na tëli bu mu doon inauguré fii 2017 2010 2010 bi mu rombee ngaabu mu gis ni xur yu bindoo mu ne fii daal ni ma ko gisee yaakaar naa war naa am ndox moom moom noonu la ko yàlla bind nu mu romb rek am ca xalaat 2011 lii ñuy dund tey ci dëkk bi ci la ko ko waxoon moom mii ne ma nañ bàyyi xel bu baax foos yi ne ci dëkk bi ak nab bi nee na loolu 2011 la ko waxoon na ko bu yàggee nab bi dana yëkkati ko ci biti na ko sëg yi it muy armeel yi bu ñu ko tëjut mu ne booba xëy na ca at mooma la sëñ Sidi Moxtaar doon xali booba tëjugoon armeel yi daal ah, ba mu ko ko jëkkee wax sëñ bi ne ko lool mu ne ko armeel yi daal ne ci biir dëkk bi te ndox mi day jaxasoog nab bi. daanaka loolu nee ko loolu nag bu yàggee day indi ay wéradi. kon moom dafa bari kon moom dafa bari ay xalaat. yàlla def na ñu dégg ci xalaat mosuñoo juyoo. nee na moom mii nag yàlla da koo déggaloon ak moom ci xalaat mosuñoo juyoo. danaa wax ne. danaan wax ne. sëñ Bas. sëñ mën na laa wax dëgg te doo mer. na laa wax dëgg te ndax man noon laa daa ànd ak moom. nga mën a ànd ak mag lu mu xalaat rek. jàpp ne moo gën ci ab Ablaye Wade dana ko waaye nag teewut yàlla déggale woon leen Cheikh Mouhamad Lamine Baara xamal na ko bu baax bu ñu mësaa toog sax cib jataay danaan ko waxal ak moom rek ndax xam na ne moom daa mën a wax ak moom mu ne ci loolu ak déggoo la ñu ngi koy nuyu bu baax di leen yóbbante am nuyoo ci doomam Karim mi nga xam ne moom itam doomam ma Abdoulaye Racine mii ànd na fekk moom ba tàyyi booba moo yoroon sàncee dëkk bi président Abdoulaye Wade moom loolee leen sëñ mun Muntaxa wax rek yoonu murit duñ ko fàtte mukk ndax daa jëf ñaari yëf ne ko sëñ Muntaxa seere léegi yoo xam ne kenn mënu koo fàtte benn bi mooy titre foncier Touba te loola bokk na ci li ko taxoon mu jot ci réew mi. ndax ki fi njëkkoon. ndax ki fi njëkkoon. ba ko ko Serigne Saliou ñaanee. mu ne ko lii mu ne ko loolu mënta nekk. joxe ay gàllankooram. joxe ay gàllankooram. ndax ci ci nag na ko ci république. ci état ci état. loolu xel mënu koo xalaat. loolu xel mënu koo xalaat. ba mu génnee loolu la wax. ba ci Serigne Saliou waxee wax. ba ci waxee wax. mu mel ne lu ci xaw a mu mel ne lu ci xaw a dëgër. mu ne ko kon nag maa ngi ñaan sëñ Tuubaa mu indi fi ku ma ko defal nee na yooyu moom lim ci am xam ca fekke ko daa bari ak yim ci dund ak moom muy ko bëgg sëñ Tuubaa ku bëgg yoonu murid koo xam ne daal doon na koo xam ne bu sañoon Tuubaa mel na gën a kawe masaalikul jinaan moom mii di Cheikh Mamadou Bassir ci ñi ci Ablaye Wade njëkk a waxal la bokk bi mu koy lijjanti ci jamonoy sëñ Baara mu defoon ko yitteem lool nee na mi ngi fàttaliku bis bi ko sëñ Sidi Moxtaar di yónni ci moom ngir mu war a tàmbali liggéeyub jumaa ji booba diisoon na ci moom lool mu ne bu ma sañoon dey sëñ bi bàyyi ma tabax ko ba mu àgg sëñ bi ne ko xam naa sa yéene waaye damaa bëggoon taalibe yi barkeelu ci loolu moom sëñ Basiiru mii li mu ci xam daa bari yàlla def it diggam ak moom xam naa cofeel gi mu amoon sëñ Abdou Khadir moo law nag loolaa jeexital ci moom mii mu am ci moom cofeel gu rëy boo xam ne moom amutoon ab ab loolu kon kenn mënu koo fay danaa ciy nettali bërki démb rek laa koy nettali bi muy dem ci inigration bi tëlib Touba ci kanam defoon muy fàttali ne bi fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bàyyi ko booba dañ doon wax rek ci wàllu continuité bi continuité ci mbir ci dëkk bi rek mu ne ko maa ngi fàttaliku bi fi sëñ Sidi Muxtaar jógee bi fi sëñ Baara jógee booba da ko fekk bitim réew président Ablaye Wade di ñëw booba nekku fi sax waaye bi mu siyaaree sëñ Sidi Muxtaar ba génn li may wax nii nag maître Madické Niang seere la ci da ko ne yoonu murid day kenn du ci doon ab taalibe di ci joxe ndigal. ci rawatina man mi nga xam ne xam naa ni yoon wi doxee. mooy lu kilifa gi décidé rek. moo lay am. kon awma dogalu di xalaatal sëriñ bi. wala mën naan ko defal nangam. waaye bu ci amoon xalaat. waaye bu ma ci amoon xalaat day danaa ko ne sëñ bas na ko bàyyi mu continuer liggéey bi ak di taalibe ndax continuité dafa baax ci mbir bi nee na loolu maître ma dikk seere la ci loolu nag mooy la ci gën a tuuti ci li mu mën a seere kon daal moom li muy seere mooy ku dëggu la ci sëñ Tuubaa ndax ba mu amagun nguur lu ne jànkoonte naa ak moom ci dëkk bi yéen ngeen dund kook moom dem na ci kilifa ba tàyyi dem na ci kilifa ba tàyyi toog fa ñaari waxtu di ko xaar te gisu ko te yàqu dara nag ci pas-pasam ci sëñ Tuubaa te ba ko yàlla joxee nguur it da koo fàtte ba mu demee ba ñàkk nguur it soppi wut dara ci ak taalibeem yàqalu ko dara te néew na te néew na. nit ñàkk dara. nit ñàkk dara. te pasteefam yàquwul. ñëw na fii ci kër sëñ Tuubaa gi. ñëw na fii ci kër sëñ gi. booba Karim a ngi ci kaso bi. booba Karim bi. ñu bari ci dëkk bi ñoo dajeeg moom di ñu baree bari ci dëkk bi dajeeg moom di wax ak moom. ba ci biir wax ja. ba ci biir wax ja. ñu ne ko ñun de. ñu ne ko ñun de. yow lañu àndal yow lañu àndal. booba sëñ Sidi Muxtaar moo fi ne. xam naa nag ñooñu dañoo wax bariwut ab xam-xam ñu ne ko yow daal la ñuy déglu sa ndigal. foo jëm rek fa la ñuy jëm. bu nu sëñ bi waxoon la nee nit safaanoog say wax li nga wax la ñuy def. mu dagg leen. na leen loolu moom. bu ma ko déggati. dama leen di yee. yéen mu yoonu mu murit nag seen force mooy benn baat. lu sëñ bi mën a wax. lu sëñ bi mën a wax. bu ngeen ci àndutit. bu ngeen ci àndutit def leen ko. nee na loolu fekk na mu ñàkk nguur gi te it mën naa tudd ñu bare bari ñu ko fekk danaa ci seere la neen itam mil 2012 yi bi muy jub damaa waxtaan ak moom na ko président de bëggoon na maa xam looy xaar ci waa Touba mu ne ko Touba de li ma ciy xaar weesuwut sëñ bi ñaanal ma waaye soxlawu ma nag muy def déclaration di joxe ndigal booba loolu élection yi des na de des na ñetti weer mu ñëwaat fii ci kër Sëñ Tuubaa bi ci màggal gi sës ci élection yi mi ngi toog Pape Diop a ngi toog Souleymane Ndéna naa ngi toog ma dikki ña ngi toog ma laajaat ko ne ko looy xaar mu jaaraat fa mu jaaroon mu ne man daal soxlawuma ndigal li mu mel daal sama soxla mooy sëñ bi ñaanal ma booba élection yi ak seegul ba ñu ci deuxième tour yi ci altine ja ay six heures ci ngoon sëriñ bi Cheikh Mamadou Bassir jot ko téléphone ah, na ko élection yi de ni mu demee doy na waar mu ne ma waaye loolu moo gën ndagam am na jàmm rek ndax am na ñoo xam ne jàppoon nañ ne réew mi day tàkk kon dafa gën waaye nag doon naa la bëgg woo téléphone sax waaw loolu moom nee na mas na ko nettali ci kanamam mooy bi mu koy jaale si soxna si waaw élection député yi la waaw waaw mu woo ko ne dama lay yónni ci sëñ Sidi Muxtaar. dama lay yónni ci sëñ Sidi Muxtaar. waaye yóbbante ma la. na ma diw ak diw. na ma diw ak diw. te ñooñu ñu ngi koy dégg. waaw xam. ñëw nañ fi ne ma. ñëw nañ fi ne ma. dañoo bëgg a dem ci sëñ bi. dañoo bëgg dem ci sëñ bi. wax ak moom mu joxe ndigal. mu ne ma nag. mu ne ma nag. waxal sëñ bi ne ko. waxal sëñ bi ne ko. lu yàgg yàgg yàgg yàgg. bu bu ko kenn mën a tax a joxe ndigal. ci da ngeen xool booba situation bi mu toll woon. daal di cay teg ay kàddu. loolu xam ne mënee su ko teg ci ab rajo. laa ilaaha keroog ba mu ñàkkee nguur gi. keroog ba mu nguur gi. ba mu xëyee rek daa ñëw si sëñ Sidi Muxtaar. sant si kon loolu. loolu boolewu ko ak yoon wi. kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax. di ko ñaanal mu gën fee yàgg. yàlla gën koo sàmm bu baax dëgëral ko bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf ndax góor te xam li ngay wax nañ nangu ñaan mu nekkoon kàddu yi eh, Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre doon ñëwaat ci ay seede mu jëm ci président Abdoulaye Wade ci délégation bi nga xam ne moom la yabaloon fii ci eh, Touba mbokk yi ku ne màggal euh, ne ziara bërëb bi nga xam ne moom moo di euh, jumaa ji ba tax na taalibe yu takk lool dañu fi euh, ñëw loole moom moo tax infirmerie bi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji di bërëb bi ñuy fajoo gën nañ koo renforcer ci ay docteur ak ay garab ñoom nag ñuy am taxawaay bu am solo ngir taxaw mboolem ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jumaa ji képp ku ci am jafe wala gàllankoor ñu taxaw la ba keroog nga fi bàyyeekoo ci noonee dem nañ fa fekk fa docteur yi nga xam ne ñoom ñooy amal liggéey bu ni mel ñu ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ci ni ngay xam ne noonu lañuy taxawoo liggéey boobu la ànd koo daayira Muxaddamatul Xidma. Euh, auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taalaa wa euh, man maa ngi tudd docteur Ahmadou Bamba Diop. di médecin généraliste. fii si Touba maa ngi liggéeyee si benn structure bu nekk fii si Touba. nekk it membre Touba assistance médical Touba assistance médicale nag soo ñu ko déggee mooy kuréel bi nga xamante ne dafa lëkkale ay médecins ay pharmaciens ay dentistes ak ñeneen ñoo xam defuñu santé mais wàllu santé moom moo ci ëpp doole. Euh, Touba assistance médicale nag li ko tax a jóg mooy taxawu yoon bi si wàllu santé waaw euh, ñu ngi ko sosoon en 2001 si jamonoy Serigne Saliou euh, à ce jour fi ne nii mu ngi ci 600 waa science médicale nag euh, ñu ràññeeku lañ ci wàllum santé surtout si événement yi nga xamante ne maanaam ci yoonu murit rawatina màggal gi Sëriñ Tuubaa bi ak yeneen événement yi fi am léegi nag euh, liggéey bi buñ ko waxee euh, jumaa ji du nekk en reste daal dafa nekk benn barab boo xamante ne daf ñoo soxal lool ndax ku ne xam na ni mbooloo daf fiy daje Touba Assistance Médicale nag def organisation bu am solo lool indi fi ay docteurs yoo xamante ne dañuy def par garde ay équipe la am na équipe bi fi nekk suba de huit heures à dix sept heures dix sept heures ak huit heures du matin am na beneen équipe bi ñëw euh, fi mu ne nii équipe bi fi nekk docteur Niang mi moo fi nekk suba ba tey docteur Bounama Niang docteur Maguette Dione mii nga xamante ne mooy euh, médecin chef bu centre de santé bu Nindi sa Diourbel moom moo fi war a fanaan euh, bu ñu nee jumaa ji dañuy bàyyi war ma jumaa ji war ma jumaa dañ koy bàyyi xel daal moo tax euh, boo bu ngeen seetloo dafa am ñaari box dafa am box boo xamante ne jigéen ñi lañ fay xool médecin bu jigéen lañ fay bàyyi bàyyi waale xel war ma jumaa ji beneen boks bi góor ñi lañ fay xool fii nag innovation ren dañoo def dafa am ay yokkute yu am solo ndax bâche bi daa fi am ren lañ ko fi indi pour gérer urgence yi ndax bu ngeen seetloo maladie yi mën nañ ñëwandoo sonnandoo dañoo def fii jigéen ñi ñooy nekkee nii góor ñooy nekkee nii ku fi ñëw sonn ñu gaaw la wallu loolu nag espace bi ak organisation bi moom moo ñu ko may ren dafa nekk benn innovation bu am solo bu am ci ci liggéey bi daal waaw leneen day mooy garab yi tamit macha allah am na fi ba doy. garab moo xam médicament d'urgence la wala médicament boo xamante ne buñ la fajee ba pare dañ la koy bindal may la ko nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem sa kër daal waaw. Euh, leneen tey mooy trois sens médical yàlla dimbali na leen ba membre yi mën nañ assurer waxuma la fii rek waaye bëgaana barabu barabu barabu fajukaay boo gis si dëkk bi jamono ji membre trois sens médical mu ngi fa ñoom waxuma la sax màggal gi mais. membre Touba Saint-Louis ñooñu ñoo ëpp ci barabu fajukaay fii même bu dul màggal su màggal jotee ña nekk Dakar ñëw renforcer ñu Touba saint si dimbalu sëñ bi am nañ loolu fi mu waaw si loolu noonu lay liggéey léegi nag wax dëgg ximma nag suñu liggéey ak ñoom lu yàgg la ñoom yàgg na nekk ak suñuy kóllëre lu yàgg leen ànd ak ñoom liggéey bi ñoom wàllu mel nii lu wees loolu sax mooy ajima ju jot dina am équipe médicale bu ñëw. équipe médicale bi day jógee ci district bi maanaam centre de santé yi nekk dëkk bi ñooy envoyé équipe mais équipe yi ñu fi envoyé yëpp ay membre Touba Assistance Médicale lañ maanaam Touba Assistance yàlla dimbali na leen ba seen i membre dañoo man daanaka ndar képp wàllum santé fii nii ci dëkk bu dëkk bu sell bi daal waaw muy loolu dañ ci sant suñu borom bu baax sant Serigne Touba ndax ñun moom ay taalibe lañ liggéeyal Serigne Touba lañuy def si wàllu yu ñu féete muy wàllum muy wàllum santé daal waaw mbokki euh, téléspectateurs yi lii lañ leen loo tey ji ci xibaar yi nga xam ne moo bàyyi ko fii ci Touba ci wàccaayug màggal gi waaye dañuy tàggoog yéen ci ziar yi nga xam ne moo am saa su ne ci Cheikh mu tax Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides nga xam ne délégation yi dañuy bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ci bitim réew ngir ñëw euh, ziare ko saafonteeg moom yeeslu waaye jëbal ko seeni i àddiya fas yéene ànd ak moom bésub euh, fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bisub bi nga xam ne bisub sant la Cheikh Ahmadou Bamba moom moo ko santaane ñu ko ci la yàlla suñu borom. sant leen gërëm leen bu baax a baax ci teewlu gi dig leen daje incha allah ci yeneen xibaar ñeel màggalu Touba fukki fan ak juróom-ñett safar 1444 ginnaaw gàddaay gi jeudi 15 septembre 2022 wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala a bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin euh, sëriñ bi ay sag njaboot ñoo lay seet si jóge ci président mu république islamique Mauritanie sa doom sa xarit sa taalibe Mouhamadul Cheikh al Ghazwani moo yónni ministère bi yor wàllu lislaam ji ak njàngalem cosaan mi sa doom di sa xarit lool daawul Sidi Amar Taalib mooy ki toogandoog yow doon sa wet mu ànd ak ambassadeur bi nekk Dakar Cheikh Mouhamad Yahya Wuld Teys ak sab taalibe ministre Ba Madine ak attaché militaire bi mu àndal ki jiite centre culturel bu Mauritanie Ahmadou Bamba di secrétaire secrétaire ministère bi Cheikh El Wali sëtu Cheikh Ahmad Fadil ba tey di consul foofa ci ambassade bi ñoom ñoo ñëw ci turu seen njiitu réew sab taalibe sa xarit lool Mouhamadul Cheikh al Xaswaani ngir bokk ak yow mbir mi di la xamal ne rek wax ji du gudd liñ daan wax rek moom la ñuy wax ca xam nga ko dañuy maslaa nii rek waaye bëgguñoo jël sa waxtu sax di wax mooy daal liñ liñ bëgg nga xam ko mooy ni nga jabootee ñi nekk fii ci réew mi noonu nga jaboot noonu nga leen jabootee ñoom misaal mi ñu ci joxe ñoom nee nañ an atum deux mille vingt bi corona bi méttee lool ceeñ màggal benn délégation étranger rek nga amoon ci ñoom la woon booba nee nañ message bi ñu la doon jox mooy lu ngeen nekk nañ ci bokk nekk rek yàlla nay jàmm waaye lu ngeen nekk rek nañ ci bokk nekk moo tax nag bu ñu demee ba àdduna si dawante ca ca woote nga nañ wu si xam nañu jàmm rek ci am euh, looloo wax tax ñu ñëw fi biig lañ fi ñëwoon moom ministère bi agsi na ci waaye délégation bi ambassadeur bi ñëw nañ biig teel na ñoo ñëw bi ñëwee euh, àndaale nañ addi yi ñu baax woon andi muy giléem yooyu nga xam ne daal nañ la ko jox sëriñ Bachirou sa ndaw moom sëriñ Abdou Khadir xool na ko yóbbu nañ koy ci daara isbu tarxee ji comme niñ ko baaxoo defee li ci des ñoom danañ ci waxtaan ak yow loolu jaar nañ fee kër gi nga xam ne it fi lañ dalal Mauritaniens yi yàgg nañ fa sax tey ren lu am solo am na conférence bu fa am fekke nañ ko sëñ Bas fekk na leen fa ñu bari ginaaw bi lañ doog a ñëw nag ziar si la nee nañ diñ leen di woo yàkkamti lu leen di wax programme mu añ dañoo wax lu yéemu dana ñoom buñ sañoon wala ñoo jëfandiku leen nañ la gis ba noppi loolu leen gëna a lay dalal seen xel buñ noppee nag li ci des lépp nee nañ maslaa la rek bu leen saa suñ neexee mën nañu ñibbi waaye nag nañ la gis ba noppi loolu loolu mooy seen yitte waaye nganale gi moom jëru ko nee nañ ndax fi lañ dëkk kenn du ganale sa bopp délégation bi mu nag mag la mag na lool wax dëgg yàlla bu njiitul réew ma yónnee na ko ci yow yu bëree bëri xam naa am na ci incha allah yëpp dana ko aggale waaye daal nee na li muy wane rek mooy bëgg na nga xam ne bugul ko xàmmee ak njiitu réewum réew mii nga xamante ni fi la la yàlla boole bu leen xàmmee loolu la fa séenee doxee junju na junju rafet ànd bu mu bëgg a ànd ak yow ci liggéey mboolem bi ngay def yëpp bu mu mën a doon surtout nag liggéey bi nga xam ne moo la gën a ñor muy muy muy muy daara ji ak li ci aju lépp